du konte bis mbay ca Cees ndey awa mbay Ndakaaro maa jor cuun super coof boy bi caare ñu ma jàlloo Tambacounda acca bokk mësu leen fekkee lu ñaaw te du ngeen mës a fekkee lu ñaaw benn yoon maa di sant di ziar di jaajëfal di gërëm képp koo xamante rek jamono ji ni yaa ngi toog uh, sa kanamu télé di seetaan sa télévision Walfadjri comme ni ñu ko baaxoo di defee sax su nekk rek seen émission doorati uh, kenn ku nekk xam ne Thiamas Show moom moom bokkuñu ko kenn ba tax na ba mu jeex donc noonu rek la ñuy def di bëggee di ziar ne saa su nekk rek nee naa la bu mardi jotee ngay xool ci li ñuy indi bu leen di jotee xool attention ci li ñu chaque jour doo mës a am ca la nga daan am saa su nekk ak fa ñuy fël donc kenn ku ci nekk maa ngi lay naan rek encore une fois bëgg nañ leen ziyaare leen bu baax a baax waaye tey ki ñu indi daanaan la daanaan boo xamante ne wax dëgg yàlla kenn dootu ko présenté àddina kenn dootu ko présenté waa Sénégal bu nekk koo wax ah. dëgg yàlla boo waxee ci moom rek ña lay dégg yëpp dañ lay naan gongo tigi donc noonu rek euh, tey euh, su euh, ki nga xamante nag moom mooy macha allah Aziza Aziza nag benn xale la boo xamante ne su ma neexee ma ne bu ngi def lu amut fenn xam na ne euh, mu ngi euh, wooy euh, wane li nga xamante ne moom mooy waaram di bay waaram ci waar bi sama góor nag damay neex ngay ñëw di dend ak man mais tey dañoo bandi quoi seetlu nga lool <laughs> lu ngeen gëj a gis mooy am black and white tegal sa fëy tegal fii rek tegal sa fëy teg naa ko jàkkaarloo suis là accolade <laughs> ñoo tey. corona jeex na ci réew mi. corona jeex na ñoo tey dina ay xeex a di ñu fat. jàmm la ñu war. taal pëno xeeñal dëkk bi xañ ñu jàmm yéen liy taxoon ñun leen doy génn doyoo leen. dindi sa mbaxana. dindi naa. àdduna fii la. xel la fii. xel la. buñ la wóoloo sa xel daf ñoo doy. dëgg la. mën ngaa def loo bëgg def ci réew mi monsieur Macky Sall. Uh-huh. par force dafa lu la neex. Uh-huh. mais ñun am nañ droit ñaan jàmm. Uh-huh. te jàmm ci yow lay njëkkee. lépp loo bëgg def ci réew mi. mën nga koo def te bant du damm géej du déborder. pënu du tàkk. dara du coow du jib kenn ndax yoon yoon rek la fi nekk. dëgg ginnaaw nag yoon daf fee pour yoon mhm. moo war a njëkk a def yoon mhm. humilité yomb na mhm. muri muuraay kiiraay yomb na àdduna procédure la dëgg waaye ngir yàlla xalaat leen ñi am feebaru nooy ñu taal pënu seen wet ñi taaba taaba ba am cantine ñu taal ko liggéey ba am oto gaare ko ñu taal ko xalaat leen ñu ñun ci lañ bokk bu leen ñu yàqal ñun ñu yokk mu lañ bëgg. dëgg la nit ki di ñaan yokk yow nga yeewu ñëw yàqal ko. cri de pour jël si benn sénégalais waxuma ñaar de benn taal ay kër xaañante policier bee kee mu mel ni ñaar ñu bokkul la te ñun ñoo bokk ndey ak bàyyi. Mhm. policier bi gaañ keneen ki jarbaatam la gaañ. Mhm. ndijaay ji bokk fee mi ngi sonal jarbaatam ci police bi. Mhm. ñun ñoo bokk benn Sénégal. guerre bu ñu neexoon guerre di continuer ba àdduna yu tukki mais dañoo xëy ñu doon def guerre dañoo arrêté dem toog waxtaan mhm. àdduna waxtaan la àdduna waxtaan la ba